mbokk yi benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot li xabaar yi bokk na ci li ñuy dooree xabaar yi tàmbali tey jii certificat bi ak itam entrée en sixième ñaari téeméer junni ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci ay candidats yoo xam ne yi ñoom ñëpp ñu ngi ci fi toll nii bi ñu xëyee ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi Mamadou Talla danañ ko ci déglu léegi ci biir xabaar yi njaareem itam daañu fa dem tàmbali nañ mbir yi ak Adama Ndiaye fan ca jot a toll donte ay matuwaay itam ci wàllu wér-gu-yaram daañu ko jël fenn fu ci ne ndar itam looloo fa am téeméeri euh, fukki junne ak juróom-ñeent yu toftal ay doomu aadama ci ay candidat daanaka nag fukki junne yaak benn yëpp ak lu ay jigéen lañ waaye ji góor ñi nag wi yoon itam ñoom ñu ëpp ndax juróom-ñaar euh, maanaam euh, ñoo gën a néew juróom-ñaari junni yu toftalu juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent daañu dem ca ndar ak tamit kii eh, di Yves Tendeng eh, toftal ci tamit li nga xam dafa aj ci wàllu njàng mu koy mee itam ak itam ñi nga xam daal dañoo bëgg tamit wax ne daal rek amoon nañ baccalauréat dañ leen war a yóbbu nag daal orienté leen te orienté wuñ leen ba léegi eh, mbas met daañu ci dikk ci laajte wu yaatoo yaatu toftal ci yeneen i xabaar. Maodo jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu ñu dooree xabaar yi ci wàllu certificat bi ak entrée en sixième ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi yéen a yàbbi ci wàllu boobu boobule am na nag béréb yoo xam ni demoon na di leen seeti Mamadou Talla commencé nañu examen bi ñuy wax ne CF entrée en sixième visité nañu benn école benn centre bu nekk fële si académie de Dakar HLM Grand Yoff ñu nañu fii également dans l' académie de Pikine mais li ñu gis mooy wax dëgg yàlla que ñu ko bëggee woon noonu la demee mesures barrières yu respecté nañ ko élèves yi ñëw nañu jël seen masque toog calme école yi également set donc pour le moment épreuve bi benn épreuve bi jàll na ba pare ñu nee ma en tout cas élèves yi ñu nee ma épreuve bi jafewul waaw donc et yi ñu am également si biir Sénégal partout au niveau des IA pour le moment ça se passe bien donc na suba aussi dañuy defaat deux cent quatre-vingt-six mille candidats moo am donc loolu mooy CFE en entrance kon mën jàpp ne euh, liñ waajur yi ñu doon xalaat élèves yi ñu doon xalaat loolu yëpp dara amu ci waaw xam nga lu jeexul nag le moment dara amul pour le moment ça mais loolu nag war nañu remercier euh, acteurs yëpp xam nga du affaire benn personne mooy directeur yi inspecteur d'académie inspecteur ñoo xam ne ñoom ñoo ko éducation formation les partenaires civils les partenaires sociaux ñoom ñëpp parents d'élèves yi donc communauté bi yëpp moo jóg parce que xam nañ ne xale moom mooy espoir suba donc comme ñoom ñooy espoir ñun ñëpp ñoo jógandoo encadré yàlla def na ko mën nañu wax ne alhamdulilah si li ñu gis en tout cas ba léegi euh, année bi daal jaar na yoon si li ma bëgg sax mooy sama yéene mooy que foo dem si école yi nga gis barrières yi covid su amee ak su amul yëpp point de lavage de fara am si école donc dañu war a continuer nii donc xam nga am na ñu doon wax ne covid bi sax am na sax lu lu baax si biir mooy que dinañu dee suñu école ñu propre et en même temps ñu Covid bi tax na ba ñu am muy lu ñu wax na apprendre à la maison xam nga suba jàng ak jàngale du si biir classe rek loolu en tout cas moo am si àddina bi te ñun am nañu sens am suñu canal am nañu yeneen jumtuwaay donc mun nañu wax ne que en tout cas ñun on a su tirer quelque chose de positif bi amee ba léegi euh, ci njaareem bu ñu fa demee épreuve yi fii nu toll itam daanaka mi ngi dox ci yoon amul benn tolof tolof niñ ko aada woo di amalee ci certificat bi Adama Ndiaye tollu nañ ci fukki junne ak juróom-ñett yu tekk juróom-benn fukki candidat yu nga xamante ne ci diwaanu njaareem ñu ngi def tey examen CFEE entrant sixième juróom-ñaari junne yu teg téeméer ak juróom-ñeenti candidat ñoo nekk Mbàkke juróom-benn junne ak téeméer ak juróom ak ñeent nekk ci département bu Bambey juróomi junne yu teg fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar nekk fi nga xamante ne mooy Jurbel motuwaay yëpp jël nañ ko ngir nag li nga xamante ne mooy examen yooyu jaar ci yoon loolu la inspecteur d'académie xamle Seydou si di ci wax rek ne lépp lu nga xamante ne jëm na ci las IEF yi soxla woon ci wàllu savon wàllu gel maanaam daal matale nañ ko ngir yokk li nga xamante ne moo jot a am ci xale yu jigéen ñi nag ñu ëpp ci candidat yi toll nañ ci fukki junne yu tekk juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak benn e, ñi nga xamante ne ñooy góor ñi toll ci juróom-ñaari junne yu tekk juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent wàllu défi scolarisation yu jigéen ñi maanaam yegg nañ ca waaye nanga nga xamante ne moom moo leen yitteel tey mooy ñu des ci l'école bi li jëm ci épreuve yooyu nag jaar nañ ci yoon te amul benn rëq-rëq loolu la adjoint gouverneur mi nga xamante ne mooy yore wàllu administration wax mu di ki nga xamante ne mooy Babacar Mbundoor Ngom ndax nee na daal li jëm ci wàllu protocole sanitaire bi respecté nañ ko fi nga xamante ne mooy centre yi ñu visité mu di E, centre franco arabe Serigne Fallou Mbacké ex Lonkin Ngor Sène Mame Diarra Bousso ak mission catholique ñu jàpp ne ñiy tardé bariwuñu ci candidat yi te surveillant yëpp ñëw nañ Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu dem ba ca Euh, ndar foofa tam ci wàllu njàng mi euh, daanaka boo seetloo fukki junni ak juróom-ñeent ci ay candidat euh, fukki junni ak juróom-ñeent yu toftalu ñeenti téeméer ak fukk ak benn jigéen ñi fukki junni ak benn yu toftalu daanaka foofa tam ñeenti téeméer ak lu toppandi góor ñi rek juróom-ñaari junni lan ak akub lim Yves Tendeng ñu ngi commencé ci nasaraan bu njëkk bi contrôle de ressources la mu def quarante cinq minutes après ñu def benn pose léegi ñu ngi ci ñaareelu jongante bi muy langue et communication. lii lee di épreuve yu nga xam ne ni candidat yi sëgg nañ ci ci njëkkeelu bésu examen wu CFEE bi ak entrée en bi fii ci Ndar rawatina ci biir centre d'examen bu école élémentaire François Mbaye Salzman. kii di Babacar Sarr mooy njiitu centre bi lee. waa fii am nañu ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ndongo téeméer ak fukk ak benn jigéen téeméer ak fukk ak ñeent góor am na juróom-benn yoo xam ne ni teewuñu ci ba nuy door épreuve bi ñetti jigéen ak ñetti góor donc soo xoolee kon ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent noo joŋante euh, fukk téeméer ak juróom ñetti jigéen lanu téeméer ak fukk ak benn ay góor lañu. moom muy xam ne ne lépp lu soxal protocole sanitaire bi daanaka respecté nañ ko bu baax a baax ci bile centre. ba nu commencé nag ba léegi vraiment amuñu benn problème teel nañu ñëw xale yi wax seen loxo ñu jël seen température vraiment lu ñu waroon def yëpp pour euh, organiser examen yi mu jaar yoon vraiment def nañ ko. protocole sanitaire bi waaw dëgg dëgg respecté nañ ko te matériel bi yëpp vraiment c'est lépp lu waroon daal jox nañu ko jox nañu madaar jox nañu gel jox nañu lépp xale yi aussi solo nañu seen masque ba ñuy commencé. di fàttali ne académie bu Ndar daanaka am na lu toll ci fukki junni ak juróom-ñeent yu toftal ñeenti téeméer ak fukk ci ay candidat yu jot ci lu toll ci fukki junni ak benn toftal ñeenti téeméer ak fukk ak benn ci ay jigéen ak juróom-ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeent ci ay xale yu góor muy ay candidat yu nga xamee ni ñoo ngi leen tasaare ci lu toll ci téeméeri centre d'examen ak ñeent fukk ak benn yi ñu tijji ci diwaan gi ki doon jokkoo ak fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax gannaaw ba nga xamee ne am na euh, ñetti fan 72 euh, heures yoo xam ne waxoon nañ ne moom la ñu wax de daal ministre ñu dénk njàng mu kawe mi fekkente ne ñi am baccalauréat wutul fu leen yóbbu daañu génn yëngu-yëngal yëngu nañ nag yëngal ci suba waaye nag alkaati yi dañ faa daal di jaar Ismaïla Marcel Koli. am naa sama bac nar nañu ma mun a orienté ci université yi dañu bëgg jàng loolu la ñu mun a lire ci pancarte bachelier non orienté yi ci suba si bare nañu. avenue Cheikh Anta Diop taal ay pneu bala alkaati yi di tas seen ndaje boobule. suñu droit lañ fi taxaw suñu orientation la ñu réclamer xeexuñu defuñu dara li ñu soxla rek mooy suñu orientation. yi les bacheliers non orientés yi nee nañu bés bu nekk daañu yëngu-yëngal ba ñu mun a jot li ñu bëgg ki xam lu ñu mel mooy Souleymane Diouf di coordonnateur yi les lu ñu def tey nag paaseegul parce que à chaque fois bu fekkee ne maam moom jëlu engagement di wàcc pour toujours parce que suñu orientation dañ koy tey ba ñu violé waa aussi encore nous on s'en parce que dañoo négocier ba ak Cheikh Oumar Anne mu bañ lànk te président joxe ndigal moom mu wëdiwaat président bi def lu mu war def à disa ko non ku am code validation waroo jot orientation ku am bac étranger waroo jot orientation te alors am na ñu ñu orienté fii nii ñooñu korom ñu wax ko tuddee Sénégal la ñu ñu amee bac mais bu fekkee moom fii lañ taxaw orienté wul kenn par la force ñu xam ñu feete grande école dañ kenn examen yi man moom waxuma ko boo moom du am du am parce que ñu mënuñu mënuñoo ne tant que jot suñu orientation moo moo ne ko organiser examen Macky Sall def ñu ndax ba examen philosophe bi bi passé léegi nag bii pa moom du jàll ci fàttali bachelier non orienté yi jotoon nañu amal ay manifestation yu bëri bala ñuy jox benn ultimatum kii di ministre de l'enseignement supérieur pour mu mën a indi saafara ci seen ay jafe-jafe Ismaïla Marcel Coly ñu dem ba diwaanu Ziguinchor loolu ci wàllu mbas mi la gannaaw ba benn waxtu demee ba feggoog luy tolloog fukki minute ak Ignace Ndeye gannaaw ba nga xamee ne foofa Covid 19 bi ñi nga xam ne dañoo nekk ci waa kër docteur yëf yi leen a laal lool lool lool lool lool nañ sax fi ñu toll nii luy tolloog boo xoolee tam lañ fa jot a xayma ca diwaan boobu boobule euh, toll na ci euh, ñeenti téeméer euh, ci ay doomu aadama gannaaw ba nga xamee ne yëf yi tàmbali na ba léegi maanaam tey dafay gën a yokk ci diwaan boobu boobule wàllante bi ci rawat nag ñi nga xam ne ñoo di nekk di faj askan wi foofee loolu nag dafa indi ak dafa indi ngeen baal ma dafa indi ak njaaxle ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci waa kër docteur yi ndax ñay faj léegi yëf ñoom la yëf yi dal di alawtiku Ignace Ndeye même su fekkee ni jafe ne ñoo am chiffre exact ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu kër doctor ci feebar bi daal di leen laal tey jii jàpp nañu ni lu ëpp fanweer ak lu topp ay agent de santé am nañu feebar bi di coronavirus fii ci diwaanu Ziguinchor naka la ko yenn ci suñu xibaar yi daal di xamle di situation bi nga xamante ni mu ngi jaaxal loolu fii ci diwaan bi rawatina ay agent de santé yi nga xamante ni ñooy faral di nekk en première ligne ci ci xeex wàllu mbas mi te jamono yi feebar bi daal di leen laal bu baax baax a baax personnel médical fii ci diwaan bi euh, feebar bii di coronavirus bi euh, bu nekk jàpp nañu ni ñi nga xamante bi laal fii ci diwaan bi depuis bi mu tàmbalee yi nga xamante ni am nañu coronavirus fii ci diwaan dafa euh, di coronavirus daf fi toog daal di fi ferenkulaay bu baax a baax ndaxte ci ñeenti téeméer ak ñaar fukki nit yi nga xamante yore nañu nañu mbas bi Ziguinchor ci commune am na lu toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñeenti nit yi nga xamante ni jot nañoo yore feebar bi di coronavirus te ci lim boobu am lu ci takku li nga xamante ni moo bàyyeeko ci ay cas communautaire fii ci Ziguinchor ñu toll tey ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar nit yi nga xamante ni amuñu fan la ñu jëlee lii di feebar bi ay centre de traitement fi ñuy fajee malade nekk ci hôpital régional Ziguinchor ak ci stade Aline Sitoé Diatta dafa daal ñu bëri ñi nga xamante ni ñoo yore feebar bi seen kër lañ leen daal di fajee loolu dem na sax ba ñi nga xamante ni ñooy kilifa waa mairie nekk fii ci di diwaanu Ziguinchor ak mbas bi nu muy lawee fii ci commune bi ñu demoon sax bay classé ay quartier yi nekk ci commune bi ñi nga xamante ni ñoom la mbas bi gën a laal te jàpp nañu ni bu côte ouest nekk na quartier bi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal ak fanweer ak juróomi nit yi nga xamante ni yore nañu feebar bi topp ci quartier yi di Escale ak Lindiane ñoom ñi nga xamante ni ñoo ñëw complété podium bi fii ci commune Ziguinchor te ñu jàpp ni feebar bii di coronavirus mi ngi wéy di fi law mel ni sax dafa toog daal di ferenkulaay bu baax fii ci commune Ziguinchor Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñett ñoo xam ni faatu nañu. Euh, téeméer ak fukk ak ñett ñoo xam ni itam moo di ci wàllante bi la juróom fukk yi ak juróom ñeent yëpp ñu ngi jóge ci wàllu euh, wàllu communautaire bi muy nag lu doy waar euh, ci lim boobule docteur Mamadou Ndiaye.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 juróom-ñett fan ci weer août ba léegi gendarmerie contrôlé na am na maanaam juróom fukki junni ak juróom yu toftalu fukki nit ak juróom-ñaar yoo xam ne yi ak ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yu ñu interpellé yi maanaam ñu ñu jàpp chef d'escadron bi ñu ngi wàllu division gendarmerie bi moom di Babacar Faye euh, am ci ay kàddu yoo xam ne jot na ko leeral lu fan weeri million ak lu toppandi itam wax nañu ne daal collecté nañ ko def koo dajale ci fànn yooyu commandant Ababacar Faye waxtaan ci xab si élément woon. waaw depuis donc bi ministre de l' intérieur génnee ba joxe ay digle yu bees ci li nga xam ne mooy xeexu mbas mi donc gendarmerie nationale dafa gën a yokk taxawaayam yokk unité de surveillance ak contrôle yi nga xam ne ñoo nekk ci territoire bi yëpp donc pour que bërëb yi nga xam ne nit ñi dañu fay faral di dem nit ñi mën a jël respecter les mesures barrières mais aussi bërëb yi nga xam ne dañ ko war a tëj muy baar yi discothèques yi ak lieu de sport yi nga xam ne dañ fay def tàggat yaram yooyu yëpp ñu tëj ko mais aussi li nga xam ne mooy sol masque nga xam ne léegi dafa ku ne su fekkee da nga jëm ci bërëb yooyu nga xam ne nit ñu bëri dañ fay daje mais aussi li nga xam ne moom mooy euh, oto yi pour transport en commun yi donc ci loolu gendarmerie jot na see contrôler lu mot cinquante cinq mille dix-sept personnes jàpp ci quatre mille cinq cent soixante dix neuf personnes donc ci contrôle bi ñuy def circulation pour xool ndax oto yi transport en commun yi parce que transport bi dafa am ñaari volet ñi nga xam ne ñooy particulier ñooñu jotuñ ay instruction pour contrôler leen xëy na rek à titre de sensibilisation mën nañu wax ak ñoom mais ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo yitteel autorités yi mooy ñi nekk ci transport public yi car yi bus yi sept places yi ak euh, taxi yeeg clando yooyu donc ci loolu contrôler nañ lu tolloog trente trois mille neuf cent trente six oto immobilisé ci ñoo lu tolloog huit cent quatre vingt neuf euh, donc moto yi aussi am nañ moto yoo xam ne dàpp nañ leen muy deux mille cinq cent vingt neuf moto donc ci loolu jot nañ ci ay amende forfaitaire ñuy dagal ñi nga xam ne ñoom ñoo dul topp li nga xam ne moom la yoon digle donc gendarmerie jot na si diggante le huit ba le dix neuf août trente millions huit cent cinquante neuf mille francs waaw loolu lañ mën a wax di ci yokk ne rek euh, gendarmerie dafa am aspect sensibilisation prévention mais aussi aspect répression maanaam tey jii mbas bi na foo xam ne ci Sénégal doom armée yëpp dañ ko war a jël def ko seen xeexu bopp d'ailleurs gendarmerie sax su weesoo sensibilisation bi muy def yenn saa yi day joxe masque non pas parce que mun na jox ñëpp masque mais c'est parce que dafa bëgg a wone ne rek mbir mi ku nekk da nga a jël defal ko sa mbiru bopp gendarmerie mu dispositif am au delà de unité yi nga xam ne ñoo nekk si terrain bi dañ leen di yokkal suñ ko laajee soit ay mooy xaj yi ñu def surveillance loolu yëpp pour gën a aar askan bi gën a aussi euh, fexe ba yokk doole li nga xam ne mooy xeex contre mbas bi nga xam ne mooy Covid 19. li aju a déggoo ci askan wi nekk ca Tobène ak ICS euh, loolu sax taxoon na sax ñu jàppoon lenn ci ay euh, ay nit. seen atte bi nag itam waa parti réew mi ak opposition bi ña nga fa daal ngir jàppale leen ca fànn yooye Cheikh Tidiane Guèye Euh, bu nga xam ne moom nekk na ci bokk syndicat jàngalekat yi nekk ci SAEMS am ay kàddu yu mu ci dénk Babacar Sow wax ci problème mu arrestation Cheikh Fall Cheikh Fall dafa nekk censeur nekk jawbe gendarmerie ñëw jël ko indiwaat ko Mboro pour di ko accuser loo xam ne moom defu ci dara ndax moom jour boobu nekkul toobeen toobeen dañ leen a fekk jël seeni nit yóbbu moom dafa def lu dul simplement wax ci presse bi o nom de FPD FPD nag force pour le de la commune de Mewane te man mii ci muy nekk quatre-vingt-neuf ni ñoo xam ni sax ñëpp sensibilité yëpp ña ca ci seen tur ci la waxee ni moom nanguwul li ñuy def toobeen daal di relater les faits li fa gendarmerie def si ni jaaru ci yoon te duñ ko nangu loolu nag lañ ko jàppe yóbbu te dul yoon man nag li ma ci war a def def naa ko contacté naa coordonnateur départemental monsieur Doudou Kane contacté naa Sawru Sène deux fois mais ba tey Sawru ni may wax ay waxu naan politique expliqué naa ko ce qui se passe G7 yëpp ngeen wax ci lii l' association des chefs d' établissement ñu wax ci lii parce que kii deful crime deful crime ñu fekk ko ci bërëbu liggéeyukaayam jël ko yóbbu ko ñi ngi réclamer à ce que ñu libéré ko définitivement métti na torom nag ñu ngi koy ñaan sénégalais yëpp ñu dégg ko. li aju tamit euh, ci li nga xamee ne moom mooy rek daal di euh, amal benn charte boo xam ne bii dafa jëm rek ci euh, cet goo jëm ci wàllu rek suuf seeg ca Thiès ak itam yi ci am. Euh, ak ñi moom suuf si maanaam euh, propre ñi nga xam ne am moom suuf si daal foofee ca Thiès tamit daal ak santar bi nga xam dafa jëm ci wàll ñuy defar euh, fiscalité bi yu demee noonu ñu ngi xool daal nu ñuy doxalee nag ñaari mbir yi pour mën a joxe ay titre foncier ci wàllu suuf si maanaam waaye nag yeex na lool daal ci luy tollook boo xoolee dossiers yi ñaari junni ak juróomi téeméeri njaboot ca Mbour 4 Babacar Ndaw Euh, fexe ba yombal bépp sénégalais dëkkuwaay waaye it ay kayit yu koy mandargaal ne yàkk moom loolee tax jóg loi 2017 ñu tuddee pleine propriété yi centre service fiscaux bu Thiès jàpp na ne nag commencé nañ ko jëmmal ne titre foncier yu njëkk yi jébbal nañ ko seen ay borom JBC mooy receveur des domaines bu Thiès. titre foncier bu njëkk ba boo ko musaan dëgg xëy na sax doo ko gëm ndax ñi ko daan am sax peut-être euh, mooy euh, dëgg yàlla am moyens yi borom barke yi ñoo ko doon am mais tey jii je pense que amul ma samba amul ma demba que tous les citoyens mën nañu am titre foncier à travers daanaka si ñaari at juróom-ñeenti téeméeri titre créé nañ leen loolu nag jàpp ne liggéey bi war nañ ko baral bu ñu sukkandikoo si chef des services fiscaux bu Thiès. boo amee sa permis da ngay dem terrasse euh, ñu def liggéey bi terrasse bi ñun ñu créé titre foncier bi et puis doo fay dara. xaar service fiscaux yu Thiès moom mooy waa Mbourkat extension ñaari junni doomu aadama ak juróomi téeméer ñu ngi xaar seen ay kayit si forêt Daara classe bu Mbourkat leeralub receveur des domaines bu Thiès jibi si waaw Mbourkat dafa nekk dossier boo xamante ne dëggal ñoo ngi koy topp bu baax a baax dafa nekk en bonne voie je pense que liggéey bi au niveau régional def nañ ko euh, commission régionale réunir na ba envoyé dossier bi au niveau de la RSU je pense que c'est une politique qui est en cours mu ngi en bonne voie am naa yaakaar ne lu yàggul dara rek incha allah Euh, président dina jël décret bi pour régler problème bi définitivement. naam coronavirus bi tey jii dina indi jeexital ci recettes yi nga xam ne centre des services fiscaux bu Thiès mu ngi koy xaar ne fukki milliards ak ñaar la ñuy xaarandi fii rek weeru décembre ñu jëm waaye jàpp nañ ne ñu ngi si euh, yoon boobu bu ñu sukkandikoo si ki nga xamante ne moom mooy kilifa impôt domaine bu Thiès Babacar Ndaw Thiès su FM Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju ci wàllu conseil présidentiel bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu logement maanaam ci wàllu ay dëkkuwaay téeméeri junni ay logement yoo xam ne yu war a lay doon ci wi njiit réew mi nag bëgg tamit loolu ñu daal di koy fexe nag ba mu nekk jàppandal nit ñi mën a am rawat nag ñi nga xam ne seen loxo jotu di seen gannaaw waaye nag euh, fii nu toll ni am na nag ay jafe-jafe ngir loole mën a nekk lu jàppandal Elimane Sall muy jiite mbootaay gi nga xam ne ñooy euh, aar àqu ñi nga xam ay locataire lañ waxtaan ci ak Mame Diarra Da Silva. dina jafe dina jafe euh, loolu yàgg nañ ko wax un sénégalais un mais ba léegi euh, dafa poser problème parce que Sénégal yi ba léegi boo xoolee waa lu jafe la ci ñoom. ñoom bi ñu waxee ne cent mille logements yi dañ koy joxee ñaari fan gis nañ ne sénégalais yi bindu nañ lu ëpp ñoom la ñuy la ñu mébétoon donc gis nañ ne problème boo xam ne la lu sénégalais yi bëgg la waaye nag. jox sénégalais bu nekk benn logement benn toit bu méngoog moom defe naa ne euh, li tubaab bi wax euh, euh, fii seen bëgg-bëgg la waaye réaliser ko dina jafe trop. day jafe ndax état deful les préalables kan lañ war a jox nan lañ ko war a joxe ak ñan ñoo war a am tey boo xoolee logement yu bëri prix yañ fay laaj. Euh, nekkul à la portée de toutes les bourses tey bu fekkee ne yow marchand ambulant nga wala da ngay jaay jàpp wala da ngay euh, yore restaurant te revenu permettre la prix yi ñuy joxe logement yi nga mën ci am kon il faut que ñu redéfinir ko ba citoyen bu nekk la mu am mu néew mu ñu mën koo accompagner mu mën a am ci logement yooyu defe naa ne loolu euh, waroon nañ ko xool avant ñu naan sénégalais bu ne dina am alors gis nañ tamit ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy bailleurs yi loi bi ñu fi taxawal ngir ñu wàññi loyer bi ñoom duñ ko appliquer tey naka la état bi mën a def pour contraindre leen ñu appliquer bi les lois. waaw pour appliquer ko dina jafe ndax euh, bailleurs yi dañu jàpp dès le départ ñoom dañu jël loi bi contre ñoom malheureusement mais loi bi pour ñu mën ko appliquer il faut que ñu dimbale bailleurs yi ci taxes nga xamante ni ni moo nekk ci biiru location ak lépp luy dem matériel de construction pour que ñoom ñu mën a euh, euh, euh, jàppandal njëg yi ci locataires yi parce que tant que locataire bi mu ngi fay lu cher ñu mën a dajale asku pour mën a moom itam am ci logement yooyu tabax comme ñëpp ñi nga xamante ni noonu lañ ko bëggee balaa ñooy dem retraite li yi tamit ci loca locataire bi fi mu toll nii location yi dañoo dañoo dañoo cher lool ci biir Sénégal gii loolu moom dafa naan ñu ñu bëree bëri wax nañ ko tey tamit wax nañu ñu bëree bëri daal loolu tax na sax Euh, euh, faggu ko luy doy war lay doon ñu ne deetawaay mbiru euh, dundu géeg yëpp waat ci biir Aysatu Géey ba mi ngi fopp doomam bu jigéen soxna si nag jàngalekat la salaire am nag tolloo ak li muy fay weer bu dee ci location leneen dolleeku ci mooy lu ñu naan jafe-jafe yi muy njànkonteel biir këram loolee tax nag weer bu dee mu jël xaalis beer ko ngir def ci leneen jafe na loolee ci moom. loyer bi actuellement moom li yàlla xam rek doy na. loyer bi cher na. donc bu nekkee loyer bi dafa cher cent cinquante dem kaw. sooy dajalee loolu. léegi aussi pour économiser sax loo jëndee kaw loolu mooy problème bi léegi. pour pour am kaw moom c'est tout un problème terrain yi bëggeetul fii. Dakar moom waxatuñ si moom foog nga génn léegi doo mën a denc sax bay am kër terrain sax doo ko am bay am. lépp xaalis banque ba xalaat na ko waaye naka lay def ngir remboursé waat ko ak taux d'intérêt bi ko banque yii di wax tiital ko lool. boo amee salaire wu cent cinquante deux mille boo defee prêt ñu lay dagg lan moo lay desal ci njaboot. dara dafa doy waar daal dafa doy waar si yow daal Sénégal fii am fi kër yombul. yombul kii nag ndaw la waaye moom nee na taux d'intérêt yooyu tax na xalaatul benn yoon lépp banque yi. waaye da ngay def preuve ba yi tegal la loolu mooy wax ji tamit seen taux d'intérêt kay mooy loolu boo xoolee ba seen taux d'intérêt dafa rëy trop ah déjà c'est pour te dire boo nekkee ci benn banque a ah bëgg fa génn on te fait payer quelque chose bi nga xamante ne mooy loolu que tu comprends ñi nag mu am jafe-jafe fu mu nekk nii ngir ñu mën a am rek ay terrain ñiy laaj rek gouvernement bi mu daal di see dugal loxoom. dafa war a wàññi lijjantiwaat location yi bu lijjantiwul location du ñu am loolu moom na tant que location yi wàññiwuñ ko kër yi moom duñ si bokk. Sénégal nag jafe-jafe yu bëri nemmeeku nañ ko ci wàllum location am terrain waxi noppi gouvernement ju Sénégal tegaloon rek projet bu ñu naan cent waaye ba tey jafe-jafe yee ngi fii jafe-jafe yooyu sax boo xoolee daanaka fii ci Ndakaaru la ëppee. Odile ñu dem ci wàllu wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo fay nuyu naa la nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu xabaaru tàggat yaram yi dañ koy doore ak tiis bi dal ci euh, famille bu euh, basket euh, bi ci Sénégal rawatina foofee ca Ziguinchor Souleymane Ndiaye ñu gën koo xam ci tuuru Pa Dimitri Ndiaye moo génn àdduna ni ki tey jii ci suba moom mi nga xamante ne moo fi jiite woon moo nekkoon directeur bu stade Aline Sitoé Diatta daal dina bokk tàggat équipe nationale bu Sénégal ci. jamono yi euh, année quatre année euh, soixante dix yi euh, ci wetu ki nga xamante ne moom mooy Bonaventure Carvalho kii di njiital lig bu basket bu Ziguinchor mu ngi regretter bile perte dañ ci daal di déglu kooku nga xamante ne moom mooy Mamadou Lamine Sol Sidibé ci micro benn Michel Kamfoudi. sama yeew tey suma secrétaire général bi woo ma. wax ma tiis bi. wax ma dese suñu pap suñu xarit. parce que lépp la représenté woon pour ñun. mooy Pa Dimitri Ndiaye ñun on l'appelait Pa Dimi parce que daf ñu téye comme ay doomam daf ñu formé ñun nag ci loolu moo taxoon ñu naw ko ñu bëgg ko moo newoon pratiquement suñu modèle ñun lépp lu ñu doon def lu tax dañu bëgg a basket gannaaw yàlla ak yonent bi moom la moom moo taxoon ñu doon dem terrain di seetaan basketteurs yi mag yi te naa la wax ni formé na ay génération et génération basketteurs fii ci Sénégal bi nekkoon na kër équipe nationale équipe nationale boo xam ne jël nañu ay coupe d'Afrique yu bëri ñoo na fii Ziguinchor formé ay nit ñu bëri ci wàllu basket ba tey tey yàlla def nañu tey ñooñu ñu ngi ñu ngi dund ci ci ci mbirum basket. donc tey Casamance perte na Sénégal perte na euh, nit bu mag nit boo xam ne liggéeyal na pour pour réewam vraiment ñu ngi jaale mbokk mi ñu ngi jaale famille am ñu ngi jaale monde basket ñëpp. Souleymane Ndiaye di pa Dimitri Ndiaye kon mu génn àdduna ni ki tey jii ci euh, suba dañuy daal di soppi discipline nag wax ci wàllum football ak euh, lii di Ligue des champions Paris Saint-Germain Bayern de Munich ñoom nag euh, lii moom mooy fafi affiche finale Ligue de champions bi ni ki ren mu doon ab choc bu rëy boo xamante ne ñëpp ngi koy xaar ci ñaari équipe yi nga xamante ne ay championne drop la ñu kon ñu ñëw ci njàng. jàngatu li nga xamante ne moom mooy seen style de jeu naka noonu performance bi ak li xamante ne moom mooy qualité yi ci euh, joueurs yi dañuy daal di teewlu euh, kii di euh, taskatu xabaar nekk foofee ca APS di les amoureux du football ñëpp final bi la ñuy xaar parce que actuellement Bayern ak PSG bokk nañ ci équipe bi gën a baax en Europe sinon ñoom ñoo gën a baax en Europe. boo gisee seen parcours yi sax da ngay xam ne vraiment ça moom Bayern moom moom moom actuellement ñoom ñoo gën gën équipe. boo xoolee seen parcours yi ñu vraiment ñoom ñoo gën équipe maintenant si final tout est possible final match benn match la si benn match tout est possible PSG aussi ay boo xoolee attaque PSG bi nga xool défense wu Bayern bi da ngay wax Bayern dina am problème parce que attaquant PSG yi dañu efficace dañu gaaw dañu technique te Bayern boo xoolee bu baax seen axe défense bi dafa diis. donc vraiment day nekk match bi opposition bu neex la war a doon boo xoolee attaque euh, Bayern bi aussi attaque bu baax la PSG défense bi attaque euh, attaque euh, Bayern bi mun na dëkku defence PSG bi yaa may dëgg donc vraiment e, e, match bu neex lay doon ñaar équipe yëpp dañuy jouer possession la ñuy jouer c'est-à-dire dañuy bëgg a am bal bi boo xoolee bu baax dëmb match Bayern bi ak Lyon bi ah 70 30 pour cent la ou bien 40 60 pour cent la pour en faveur de Bayern donc Bayern moo gën am euh, ballon bi mais défense kii euh, défense su Bayern bi moom dafa diis dafa dafa diis et puis ay contre attaquant lañu parfois dañuy fàtte ne ay défenseur lañu donc PSG am na am na ay possibilités mais final bu neex la match bu mag lay doon vraiment match bu mag lay doon mais final moom kenn mënul si wax dara parce que équipe bu bu bu jekku sa moroom rek mu yóbbu la Arnaud. Paris Saint-Germain Bayern Munich ni ki dimanche bi ñu dëgmal la bu 19h jotee muy finale Ligue de champions Maodo Faye yow moom xam naa ni. doo faral Paris Saint-Germain ndax Bayern na euh, Bayern na nga dul faral. ndax ndax moo door Barça dóor yàgg te métti. waaw loolu métti daf maa daf maa éliminé moo tax <laughs> loolu loolu ma waxtu ba ci dara. <laughs> mu moom kay moom Paris rek. ah Paris ah ak Idrissa Gana aussi. ah waaw gaa il faut que ñu supporter ko. suñu joueur boobu waaw damaa bëgg mu ndam. waaw kay jërëjëf jërëjëf merci jërëjëf. <laughs> Odile Minkilaan ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk kon jërë ngeen jëf kon ñu itam foofu la xabaar yi buuree daanaka juróom fukki minute moo fegg ci benn waxtu ñu ngi leen di ñaanal jàmm